Reubeuss TV mooy suñu télé. la chaîne de la vérité. tasaare leen ko. bu ñu fekkaat affaire même chose même chose chaque jour nii la ñu nekkee ëpp na deux mois ni presque fii nii la mel. léegi yéen woo ngeen waa ONAS wala. woo leen woo chaque jour ñu ñëw même ki fi jiitu fii ñi nga xamante am na ko fi jiite waa maire bi ko tamit da leen di woo ñu ñëw fii xam bopp dañuy pàccax pàccax affaire bi rek ni dem sa yoon lendemain bi balaa ngay xel sax fekk affaire bi nekkaat comme comme gis nañu ne fi suuf la woon da doon wow mais gis nañu léegi ak pavage bi ndox bi du dem day taxaw benn place euh, tey ban message ngeen di lancé tey autorités yi. ah en daal nañu gën a jàppale rek wax dëgg yàlla nañu gën a jàppale quoi comme lu ñu waree comme ñoom ñoo jiite nañu war a jàppale quoi loolu nit moom foo mënti liggéey rek foo mooy suturaloo foo nga mën a nekk ah te xeet bi moom foofu la lay kiiwee nañ nañu jàppale daaw wax dëgg yàlla ñi jiite nañu jàppale loolu la ñuy ñaan quoi lu ngi nee na li muy ñaan mooy autorité yi jàppale leen ba lii mën a jóge fi ndax ko ko xool xam ne ne xet bu bon bi ak période bu ñu toll ni nga xam ne ne feebar yi barina na trop nañ ko wax bu ñu yaakaar ne corona bi dong la feebar yi fi bari na lii ay indi kon na autorité yi ak waa ONAS jàppale askan bi lii mun fi mun fi jóge dañuy dem dugg ci yeneen koñ tamit xool ñoom tamit nu ñuy dundee fu mu toll ni euh, ndoxu bouché yi nga xam ne mu génn ci koñ bi ak pavage yi aussi dañ ciy wax parce que réalisation la yoo xam ne ne mairie bi mu ngi koy def pour permettre ak euh, askan bi ñu nekk vraiment mu gën a rafet gën a nice koñ yi gën a gën a yaatu parce que xam nañu suuf moom da ngay ree ba tas na ci biir. fi koo xam ne tamit ngi fii ci koñ bi la dëkk euh, grand ñu ngi lay Ablaye Bari ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ziar di nuyu mbooloo bi yëpp ñuy askan bi vraiment kontaan nañ si seen liggéey bi rafet na trop vraiment macha allah. gis nañu ni mairie bi defar na leen fii ay pavage euh, noo leen ko gisee. non vraiment kontaan nañ ci mairie bi trop na vraiment yàlla na jëm moom la ñu yàlla quoi te vraiment ak koñ bi tam ñu jàpp si bu rafet na askan wi rafet na kontaan nañ trop vraiment yéen itam seen liggéey rafet na quoi macha allah. mbaa bi mu tawee rek indilul ay problème comme gis nañ parfois suñu defee yenn liggéey yi ndox bi suñuy mën na dugg ci biir këru nit ñi. non mooy canalisation bi rek moo xaw a kii quoi moo ñu xaw a sonal tuuti quoi parce que vraiment day taa quoi wax dëgg yàlla day taa bu wax quoi parce avant ñu dërki bi canalisation bi la waroon jéem jéem xool ba xawar balaa moom vraiment vraiment métti na trop si ñun quoi. maanaam daal su nga wax def nañu liggéey bi c'est vrai que rafet na mais canalisation yi daal mooy problème bi ça pose toujours problème. waaw toujours moo ñu ni problème parce que fois day taa quoi day taa chaque jour moo ñu ni problème daal vraiment wax dëgg yàlla. tey ban ban message ngay lancer autorité yi nga xam ne yaa ngi jàkkaarloo ñoom. non autorité yi ñu ngi leen di remercier bu baax toujours daal nañ bu ñu fàtte ginnaaw daal comme ñuy jàppale nañ gën a jàppale nañ gën a yokk affaire bi daal vraiment content nañ si ñoom trop na parce que liggéey rafet na trop mais nañ gën a jàpp si population bu baax quoi moom lañ ñaan yàlla quoi vraiment te vraiment yéen tam ñu ngi leen di ñaanal bu baax affaire bi yàlla ñu jëm kanam bu baax baax vraiment kontaan nañ seen trop liggéey bi rafet na quoi

bu baax ñoo ngi lay fay bu baax ñuy doomu rëbës nag juddoo fii màggee fi macha allah wax dëgg yàlla nag yàgg ànd ak Alioune lool mu jàppale ñu ci fépp nag defara ñu ay regal yu baax macha allah mais pavage yi moom ñun yëg nañ ko parce que su tawee ndox mi yëpp fii lay ñëw dugg suñu biir néegi yi dëgg yàlla ñu sonn bu bëgg a dee indoone lañ def. dama ne woon keroog nañ ko filmer pour wan leen ko ñu ne loolu weer sa bopp la mais du loolu pour ñu xam Alioune bu gisul du xam. dégg nga looloo taxoon mais man dama filmer woon yëpp te keroog dama ne woon nañ dem woo nañ ko filmer envoyé ko fara mi loolu laa wax pour mu wane ko Aliou mu xam ne pavage yi baax na fi torop mi ngi ñu baax na ki ñun mais mu ñu yàqal benn côté parce que yëpp fii lay ñëw suñu ko ndiiri tamit noonu lu ñëw du jóge ci koñ bi si ñun lay ñëw verse si ñun ñoo gën a suufee metti na torop su tawee dañuy sonn suñu néeg yëpp lay am ndox dëgg yàlla léegi yaakaar mooy problème bi kondir yi dafa tóoj dafa aju. wala suufee dafa suufee trop. dafa suufee su woon moo ñu gënal dafa suufee dafa suufee trop. léegi te yaay ni jàkkaarloog euh, mën naa ne monsieur le maire euh, war a wax li nga seen li ngeen di ñaxtu di ko jooy tey waxal moom. wax fa dëgg yàlla fii kër maamam la daf fii ñëw xam na bu baax li fi nekk wax bëgg yàlla pavage yi baax na mais gis nga gis ngeen mbedd mi nu mu mel ndox mi yëpp fii lay taaju parce que ñii bi ñuy liggéey fii dañu waroon liggéey mu def nii mais ñoom dañu koo liggéey mu duggaat ci biir koñ bi su ndox mi su jógee li jógee ci mbedd bi yëpp fii lay ñëw verse si dugg suñu biir kër gi ñu fees dell xam nga kër gi soo ñëwee fi danga naan macha allah mais su tawee dañuy sonn parce que dañuy xuus ñoo waa géejawaay ñoo yem rek dañuy ngacc dañuy fatt dañuy as di génne keroog aspiré la ñu wut fii lañ ko branché di génne ndox mi ci biti sonn bu bëgg a comme ni ngeen ko déggee baatu askan bi la wax na leen metti pavage yi rafet na trop mais am na ay conséquence yoo xam ne indi na ko fi dañuy dem rek gisaat ñeneen ñoo xam ne aussi waxtaan ak ñoom. ñu ngi rue Mangin angle Belfort ñu fekk fi aussi pavage yi macha allah pare na yaan yaan yaan na trop euh, gars yi ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay waa Reubeuss TV nuyu àdduna di nuyu Sénégal di nuyu waa waaw di leen sant di leen gërëm seen teewaay waaw di xaar seen question rek ci li ngeen li leen tax a jóg daal. Euh, gis nañu depuis quelque temps ñu ngi defar ay pavage rëbës pour génn suuf si jóge fii rëbës gën gën rafet euh, tey yow ban yëg nga yëg nga am bi nga gisee que pavage commencé na te am na côté yu pare. waaw dañ koy rafetlu dañ koy rafetlu parce que c'est normal parce que boo xoolee dañu waxoon Dakar ville sans sans sable loolu lañu waxoon boo xoolee boobu ba léegi gars ñu ngi ci nag ñu ngi ci mais dafa am lu ci lëndam parce que dañuy pavé fii bàyyi fale man loolu rek moom si xaw a jaaxal daal waaw leer laa lay wax nii parce que man ci maire bi liggéey naa fa sept ans euh, projet bii nii yëpp fi la ma fekk mais dama gis ne dañuy pavé kër ñoom Papis Niang pavé kër Pa As Diack pavé euh, ginnaaw prison bi quelque ruq yi di tëb di tëb yeneen kër yi man loolu moom ma xaw a jaaxal ba léegi nii. da nga bëgg a wax ni que pavé bi dafa am kumba am ndey kumba amul ndey. waaw lu graw laa lay tegal man budé budé projet bi Alioune ndoy yoron ba heure bi ni moy daw ni man bo xolé sum buntu keur dañ koy top parce que man ak Alioune ndoy dafa am conflit conflit bu graw bu yag sax té lolu sax d'ailleurs momu jëlé man ci maire bi mais pavé yi ni ni ni machallah allah mi ngi cool mi ngi nice mais dañu wara bayyi di tepp buntu keur ñeneen ñi ñom ko andut ak ñom duñu pavé sa buntu keur lolu amul sens. gis nañu c'est pas c'est pas la première fois gisoon nañ ko fii ci ci bi ñuy séddale ceeb mi ci période Covid bi euh, que ku àndul ak maire yenn privilège yu doo pavage tamit ñëwaat tey nga yow nga sa bopp yaa ko wax euh, en tant que citoyen bu Rebeuss bu Dakar Plateau tey benn message ngay lancé Alioune Ndoye ah, parce que suñu maire ah bu ñu fàtte loolu tamit. waaw foofu moom li ma la ci mën a wax rek mooy moom il toujours été comme sa parce que man bi may jóge ci maire bi conflit boobu la moom. APR la bëgg a àndal man bëgguma ànd ak APR. noonu la demee ma dem ànd ak Khalifa Sall ñu daax ma ci loolu n'est-ce moom loolu moom mooy jikkoom boo ànd ak moom dalay daax moom bañ na ko ba sax buy def visite proximité day wax agent yi lu leer su ma su may génn woo naa ñëpp ku ñëwul dama lay daax. amul sens loolu la gis nañ ko si ceeb bi tamit demee na noonu amul sens quoi boo nekkee maire dangay ngay uuf ñëpp boot ñëpp mais lu muy nu muy gérer commune bi. noonu amul sens te ñi ne ci ginaam tam waxuñu ko dëgg ñiko ko tam waxuñu ko dëgg te man euh lool rafet lu mako daan rafet lu mako lu ñaaw lay def noonu. nga jox ni révélation de taille hein? waaw limay wax ni dafa am preuve euh bo xolé euh, c'était un maa ngi euh année bi mais def na 3 ans légui daf ma euh... waaw mais amna lo xamné duñ ko révéler ci télé quoi mais. daf ma dàq euh, vendredi mardi ma dem signé ma dem signé mairie bu mag. duma ko wax si télé quoi noonu la demee mais mu leen expliqué woon dëkk bi day toj mais moom na xam ne daal moom mooy suñu maire ñoo ko fal xam nga na xam ne daal euh, gox yëpp benn la euh, am warul mun a am par parloo kumba am day kumba amul day daal ci ci goxam. gis nañu maire day am ay conseillers ñu nekk ci ginnaawam conseil municipal yaa ngi foofu tamit tey ñoom tamit ban message nga leen lancé. waaw ñu ñu ñu nekk ñu xam ne ñoom ay ay doomu aadama lañu ay gor lañu euh, ñu gëm seen bopp te bañ a topp ci ginnaaw nit ki rek muy def lu ko neex. dama lay wax d' abord li ñu wax noonu ay waxu ay waxu fala la quoi gis nga rëbës defar ko moo jaay parce que waa rëbës seen bopp c' est l' impression ñoom bëgg ñu lu baax quoi ñoom quoi Favache amul benn rapport ak ak rëbës kër yu fees kër yu fees comme ñun suñu kër ñun caamen. ruq bi nii soo duggee ay kër la yoo xam ne taw crédit foncier la woon tant crédit foncier la woon donc ay kër yoo xam ni cour bi dafa xoot dafa xóot boobu fi fi amoon tali temps boobu ay ñoo fi nekkoon ay ay tool ñoo fi ay tool fi nekkoon donc bi ngay defee fi tali bi kali bi moo gën a moo gën a yéeg kii moo gën a yéeg kër yi donc soo jëlee benn ligne par exemple bii ligne bi soo ko jëlee nii kër Thiamène kër ñoom Roqi Seck kër Diassé yi quoi ak kër Ngéyeen ñoom ñëpp li ma la expliqué noonu

ay ki mo fa def ay quelques flaques d'eau te soo ko nekk tali bi dafa dafa dafa plat ndox mi dem na yoonam tranquillement c'est que ñom dañu bëgg wax fi ay affaire de politique ñu bëgg wax fi du lenen quoi du affaire du lenen loolu la problème bi lenen mais nit ki su defé lu bax ba lañ critiquer ko da ngay nangu defal lu bax ba paré après nga door critiquer quoi. bisimilah Aliou Ndoye ni mënu jappalé ci tabaski gi ma sha allah. bu nu ko gënee jàppale fii ci rëbës nun fii ci kër seex Tidiane si fii yàlla na yàlla yokk leeram jéem na fi ba sonn waaye daal wax dëgg yàlla bu ko ci maye loxo dina nu gën a jàppale ndax fii dëkkukaay la nu ne fi di daan sunu doole ba bëgg lu baax bañ lu bon léegi nag nun danoo bëgg mu jàppale nu fii nu am fi duus ndax sëñ bi nag dew na ba sonn bëgg a boole këram ak kër gi itam day metti lool Aliou Ndoye nanu jàppale moom monsieur le maire mu gën noo jàppale nu am duus fii nu ne ndax nag dan fii daan sunu doole am na nuy kër Touba waaye nag fii itam dëkkukaay la nu ko bëgg def di daan sunu doole di dem di ñëw waaw. noo noo gisee noo gisee li ñu leen defaral fii. macha allah fii ni mu ko gisee baax na parce que ñun dañ fi daan def bu tawee ndox mi ne fi léegi nag bu tawatee macha allah dañuy fobeere mu set gan nag mii mu mel fii gis na baraag yi ni mel bu nu ko gënee jàppale it gën noo cee mooy le itam gën a dolli yaakaar gën koo sant. gëna sante yalla suñu borom mi nu sak ba sak ko ba mu gën cee man loolu nu gën ko sante dak te no ngi koy doy lo hitam no ngi ci gëna am yaakar mu defal nu fi duus parce que nak ay jëntukaay it buñ fi bo fi def di dem no ngi dem ba kër imam koku itam wax da gal bu nu ci le hit da gën gëna sante suñu borom bu baax wassalam kon mën na ne monsieur le maire aline doy dégg nga li la sa askan bi wax. ñii ñu ngi jooy fu mu toll nii ay toilettes euh, yaakaar naa ni bi nga defee pavé ba mu rafet macha allah rafet na gis nañu ñëpp gis nañu mbedd yi ni mu mel malgré que am na ñoo xam ne ñu ngi dénoncé ne que affaire bi fa am koñ ñu ko def ak yeneen koñ ñu ko deful mais lépp sa askan la lépp sa njaboot la ba tey diir moo ñu si taxoon jóg nga xam askanu Dakar Plateau askanu Rebeuss la ñuy dund waaw. fii nag moom gis nañu ne que kër gi moom ba léegi amul ay toilettes mu nekk loo xam ne ay nit fi daay doomu aadama fi dëkk famille imam ñoo fi dëkk mën nañ ne lépp loo ci mën a jàpp monsieur le maire euh, rëbës ñëpp ñu lay tàllal seen loxo Dakar Plateau yëpp ñu lay tàllal seen loxo kon ñu lay nuyu bu baax te di la ziar jërëjëf. fi mu toll nii nag ñu ngi rukk Delgado fekk fi ko xam ne mami mami yow yaa fi kaasoon ne kenn defal leen pavé seen koñ tey na pavé yi pare na. waaw pavé moom pare Aliou moom nañ koy sant di ko gërëm dëgg yàlla defal nañu mais luy problème bi mooy day taa bu ñu ko bu ñu ko mën a defaree daal moom defaatal ñu ko ndax bu su guddi ñëppay tànk ndox bu nañu ko defaatul daal lañ koy ñaan. malgré que defar nañ ah, bi nag moo ñu xaw a sonal bu tawee day fees moom après ñu dañu obligé tànk ko di ko sotti taliba. waaw pantu dafa xóot mais nañu ko defaraatal rek ñu ngi koy sant di ko man nag ah, Aliou Ndoye koo judd ku judd ku ne am nga sa géwélu judd waaye Aliou Ndoye man maay géwélu juddam fii ci rëbës fii. kenn du ko waxati lenn leen tama tama ne fi xanaa ma dee kenn du ko waxati lenn leen tama ne fi muy joxe 50 millions xoolu Pula Fuuta xoolu séeréer xoolu joolaa ñëpp la boole ñu ngi koy sant di ko gërëm lii ma ne ma bëgg na Alioune Ndoye na bu ko seetaanee na ma seet si donc sonn naa ci moom nag maa ngi koy kaasa xeexal naa ko guddi xeexal naa ko bëccëg 50 millions xoolu Pula Fuuta xoolu séeréer féewalewul kenn bis ni ki tey nag maa ngi fii ci rëbës ku ne am nga sa këyit doo am maa ngi fii ci rëbës noo ko xam tey nag man la rakku fasaala mami tak kon monsieur le maire dégg nga sa géwélu judd lu mu wax fu mu toll nii yaakaar naa ne moom kaasal na la te li mu wax rek mooy taataa bi moo leen sonal te yaakaar naa da ngeen ci ut solution incha allah rabi. Reubeuss TV mooy suñu télé. la